ak si leen ak jàmm si seen rajo bi amul morom te jafeerooy rajo Ratonga ñu ni nit kuy wane kanam gu neex di wane ba neex foo ko fekk mi ngi am taw feex <laughs> kenn mënu la gis na xaram du gis ngeen korsa ni mu yeewoo foo ko fekk mu ngi siñlu ay bëñ yu weex alors que booba xol baa ngi jóg bi saxaa bu kenn di àtte mukk nit ci kanam gi mu lay wan ndax mën na la yóbbe ci njuumte xariti ratanga ak feneen ay ca leen ñu dem oh Kosa lii moom jaaduwul nag <laughs> góor daal ndekki bu amee soxla ci yow rek lay farak yow mm-hmm. tey mu ngi ni mu sàndi ma ca xaj mm-hmm. ndax keneen gone gu xamul tus mm-hmm. man mi di aawam di daan sama doole ngir jàppale dëgg la xoolal ma lii rek danga war a goree nag ndax kii moo lay dundal. yaa ngi pauvre ba pare di takk ñaareel. Ah? mais kan mooy dund ci kaw kan fii ah. yaa ngi may toroxal. mérité naa lii nga foog. laasana am na loo xam ne kenn du ko wax ndax respect. mais mais mais man maay kii respecté ko sax ñàkk déggoo rek la mais kan moo ko wax mu génn chambre bi certainement pas moi mais yow da nga malade wala nga foog ni mën ngaa dogal dara ci biir kër gi. chambre bi chambre corsa la leer nañ yaa ngi dégg léegi leer na amatul kenn kuy dugg ci néegu kenn falaayam falalala man nga koy diggaale ciy les femmes man maa ngi liggéey ji yow nga te ngawoo sa lii dina sawar lool ci jàppale la danga rafet maman. xoolal Rachel dafa graaw de sama mag moo ma ko indaale. waaw. Julien da nga am chance dinaa la indaaleel benn bés bu ma demee France. da dem. E e waaw waaye du doon léegi de bëgg naa ko nag. dama bëgg a doon footballeur professionnel te gëm naa ni mën naa am samay chance. dafa leer yaa ngi mel ni Drogba de. dama mën li may def soo xool yi ñoo may jaxase nii rek. su fekkee ni da dem France nu mu la gisee ci yow su boobaa damay wéet fii xalaatuma ko. Eh, lan ngay def fii. léegi sama rakk bi dafa am ku muy génnal de waa kii mooy kan. du kenn benn copine la rek. Hmm. wax ma waay. arrêté na ayca ñu dem. <laughs> non ma léegi waxal sama ñoom yaay damay guddee wàcc rafet na moom. maa ngi jégalu ci li ma leen yóbbu démb ci guddi bu leen ma mere nag d'accord. ma xew ma la maman. mere naa la. passé ça maa ngi fi. ah na si lii am na solo. pour sa wér gu yaram il faut nga respecter sa ñetti rendez yi des. du ma ko mën. lu tax ma dëkk dafa sori te du yaa xool lépp baax na noo. ñun dañoo bëgg a dalal suñu xel bu baax ci sa ëmb bi ba keroog ngay wusin ñun lay toppatoo nii pour yow la ak sa doom moo war a gisee yu bari yi. dinaa seet ba xam sama jikkër ndax dana ma fi mën a gunge. d'accord mën nañ demaale. consultation bi ngay def dafa am njëriñ ci xale bi soxna si lan yaa ngi may dégg sikkil nooyil bu baax voilà pare naa jeex na ba pare yëkkati ci loxo bi Magar na nga def. sava sava ça rek yow nag. ah dara changewul wul. Magar dama ñëwoon xool ndax jot nga message wu xale yi. ça va ci jam ñoom de. mooy ku la gisul fàtte la daw seen ginnaaw pour am seen nouvelle di dëgg la talatuñu ma ba noppi fàtte ma man man wet naa magaar ñii war nañoo fàtte nii seen yaay lu leen tere woon toog fii walla fii ci dëkk bi sama jëkkër moom daf may énervé du fi toog mukk foo ko fekk rekk mi ngi wër ci mbedd yi di dox mel ne xar te sa jëkkër kaay hmm, fii ma tijjil la Maga yow am nga chance bi nga amee jëkkër bu sérieux comme Tulli waaw waaw xam naa am naa chance danga manqué ndox lool garab bi am suukar dina ci baax booy saw est-ce que doo am ay problème yu mel ni ay lakk-lakk wala. sama mag la moo ngi feex sa mag bi dafa manqué ndox lool sax foo mu xoolaat alimentation te foo mu naan ndox bu bari lool. man loolu yàgg naa ko wax di lekk di naan pour moom ak pour bébé bi. loolu moo tax mu ñàkk nii kattan ba mënul tontu li mu ko laaj yëpp te it moom amul sax carnet de grossesse yéen bii mooy première fois ngeen fi ñëw. déedéet mosoo fi ñëw. Ah et est-ce que feebar yu mel ni daf ko yàgg di sonal comme lu mel ni sibiru walla li ni mel. déedéet yaakaaruma ko de. Euh, bon il faut ñu xaar résultat analyse yi ci la ñuy mën a xam lan moo ko jot d'accord. jërëjëf merci beaucoup merci sa taxawaay keroog moom kin fa dajaloo ñu koy wax madame corsage kooku baaxul dara si ñun kontaan nañu. du dara dalul bu baax dégg nga. et nag non déedéet déedéet man sama liggéey laay def nag gardeel xaalis bii di ngeen ko soxla pour soo leen di jënd kit d'accouchement dégg nga. eh Talla ça va sa waa kër ça euh, waaw ñu ngi si jàmm yow nag madame Corsage euh, Corsa. soxna yi na ngeen def. mbaa ñu ngi leen di toppatoo fii beneen sage bi gan la fi moo tax ma ñëw xool ndax deful erreur. ah sage bu bees bi fi jóge léegi da nee na gisagul ba léegi sama carnet ëmb mag bi. soxlawu ma ne man jigéen yi ñëw fii yépp laa xam man kese maa fii sage bi fii xool sama mag dégg nga wax ci. ok. ndoortelu ëmbam dafa amoon ay jàngoro si ay sawam loolu kese la est-ce que booy saw dafay tàng. eh mm. soo bëggee ñu dimbali la danga may tontu dafay tàng waaw wala déet waaw santal yàlla bu ma fi jaaree beneen sage bi defalu la antibiotique xaaral ma yokk ko ci butéel bi ah xale yi defe nañ ni lépp lañu xam moo tax duñu jóge ci erreur waaw kay man may kii tax tey ba nga mucc ci sa feebar merci madame sa gërëm yi rekk doy ma làmbal ma ci sa poos dara noonu lay deme fii mais beneen sage-femme bi man laajuma dara te dañu soxla xaalis bi pour fay frais yi. waaw man samay fay nag xalaat ngeen ko te man maay kii ay garde guddi tey gi te yaakaaruma ne dinga nangu ma fàtte fi sa mag ji. foog naa ne dootuñ ko soxlooti ah. bonjour Asta dafa mel ni yaa ngi tane de ah Binta waa kon fàttewoo sa rendez-vous toogal. docteur Moulay. bonjour. bonjour yaay. xaaral ma présenter la assistant. assistant ak Sil ak jàmm ci kër gi. yaay wax na ma lu baax ci yow. kontaan naa trop ci li may liggéey ak yow. ñu dem. ah bonjour docteur mujj nga gisee ak euh, Asita. waaw li ñu mën yëpp def nañ ko pour dalal ko ngir won ko centre bi. merci Corsa. loolu moom wóolu naa la ci bu baax ah dañ ma woo fii en urgence ndax benn malaat waa docteur man maa la wóolu woon dafa yegg seen néew kattan. ak euh, yaram xam naa ko sama malade la. Euh, waa na baax na ñu dem. nga bi maa ko dalal te amul woon sax carnet de grossesse bëggoon naa ko toppatoo pour gën a miin liggéey bi. Hmm, wax nga dëgg de. Corsa lay faral di àndal di liggéey. mais nag wax nga dëgg il faut ngay liggéey lu bari ngir nga gën a miin kër gi noonu la yow yaa may jàppale. d'accord Corsa dinañu ànd seeti yeneen maladies. d'accord docteur hmm? d'accord. Euh, sage femme bu bees bi saggan na de dama mujj jaar fépp fu mu jaaroon ndax càgganteem ak itam mu teg boppam li ngeeru ratanga mais amoo choix sa résultat analyse yi yegg si nañ dëggal nañ ni da nga ñàkk ndox te itam jàngoro dafa rax ci say saw du jox ngeen ko ay antibiotique euh. d'accord li nga def baax na assistant ni nga doxalee baax na di wér ak jàmm ndax yow dañu laa teel a toppatoo léegi moom dallul lekk bu baax da ngay naan ndox ni mu waree ngir sa wér gu yaram ak sabu doom kon nag ma bàyyi la ak moom mu toppatoo la bu baax ba ci kanam. ok mais beneen sage-femme bi moom ma si defal antibiotique. man xaw ma sax lu ma dal nii ba waxuma dëgg. maa ngi fii soog a ñëw dama bëggoon rek docteur bi kontaan ci man jéggal leen ma ci antibiotique yi ma fàtte. amul problème. merci ci li ngeen ma ko nëbbalee docteur bi. su ma nekkoon ak docteur bu rafet nii tamit dina ma jar a wax lu dul de. Bonjour, Monsieur Doulani. mais mais mais mais mais ba jaaru maquillage nga def nii tey jii lii du image bu baax pour sama boutique bi. maa ngi jégalu dinaa gën a def attention suba. merci au revoir. ci kanam. non non non yoon du yoon tamit mais mais ana mais yow ana sama vrai client yi yow xam nga nit ñi duñ la indi rien di tout. mais dara ñu ngi fi presque toujours. lan pour ñu consommer cinq minutes rek à chaque fois dem ñibbi mais loolu du dara mais loolu mooy zéro loolu du dara. xëy na da nga war a def tuuti publicité. ama <laughs> ah, jël ko ci sa salaire mais lan moo ci sa yoon. lan mooy ci sa yoon. Euh, monsieur Doulani. lu xewati da nga waxoon ni su amatulee ay client mën na wàcc plus tôt. mais fii su amul client si sa faute la tamit. ba pare sa kanam gi dafa raglu. bon demal faju ji. suba nag di nga fi naajee. bonjour man la assistant di ngeen ñëw pour consultation. ah non man bëgguma nga laal ma ndax dégg naa ne mënoo sa liggéey te dafa des. ku leen ko wax. xanaa Corsa mooñ ko wax ñun. lekkal ba suur doom day. yow da nga bàyyi affaire yàq der yi. mais waa ma di kii li ko dal. nga bañ maa dalal si jàmm man loolu mënumaa yëngal. bul yaakaar ni nag dinaa la seetaan ngay yàq sama der man négligente ma te mën naa sama liggéey ah kon lan moo tax ba fépp foo jaar ma jaaraat fax joxoo sax antibiotique sama malaat bi amoon feebaru sax loolu moom soxlawul jóge ci sous-région bi walla def fukki at ci école pour xam ko ah yow la waaw te man au xam naa sama liggéey man au moins jën xaalis ci client yi di ko dem jëndee ay ginaar. merci Badiane. benn paquet cigarette Badiane. amatuma cigarette. profité si nag nga bàyyi tux bi. bàyyil tooy mu ngi nee Badiane. sama loo jéemul doo ko ba sa man ah gis na maga ça va ça ku sawar de ma fii xam naa pal yu moomee yoot sama fépp ay métti jaay ma karité su ma demee marché aussi xalaat bu rafet la waaye maa lay digga nga dem centre ba ndax man duma docteur nag. non jaru ko sax su ma maasoo lépp dina baax. dama gis yaay maa leen boole sama xarit la dina la toppatoo bu baax. non dina baax. franchement Magar ku la gis xam nga ni wéruloo yaay suma xarit la defal lu ma la wax naka la xale yi def. yow dangaa war a nekk en bon santé pour mun a too xale yi tamit xam naa ni tulli mu leen di too bu baax waaye nag. xam naa ne yaa nekk def liggéey kër gi yëpp ah sama doom gis nga de da ko góor yi nii la rek. si Badji. ok baax na nuyul ma xale yi. wàcc moom moom niti la mais du yow yaay tànn ko la neex de man man maa taay ci yëfi ko su dee moo fi nekk mën ci moo bi boo gisee keroog jotal ma lii rek bonjour loo bëggoon soxna si ka dul daje nag dangaa seet si ñu euh, feebaroo j'espère non non ça yow nag looy def si fii dama fi jaar di liggéey yenn saa man si quartier bi laa dëkk te mosuñu daje dañ maa fal médecin référent fii ci Ratanga mais nag yàggul waaye yow ci kan la nii ça va Moulay tulli mais da nga ma bàyyi waaye yow ci loo nekk nii. Euh, man. Euh, léegi man maay directeur commercial auto plus affaire yaa ngi dox bu baax je pense que dama xam boobu domaine ba yow nag depuis lycée ba léegi chargé woo de. jaaral soo amee jot. ma changer sa oto bi ci benn prix buy defee toute concurrence. ma bàyyi leen dama war a dem jëli xale d'accord chérie. assistant kaay jël bébé bi nga nettoyer cordon bi assistant mais raxasoo sa loxo yi. ah may jégalu de. il faut que ngay def attention bu baax a baax. waa xam naa ko sax de. da def sa xel mi fii naka sa malaat bi nu mu def. ça va tane na si ngoon si de sama xel dalagul si moom de ba tey maa ngi naqarlu li ma fàtte antibiotique yi di nga yàgg di inquiété wu ci say malade ma chère bul denc dara ci say njumte ci ngay jànge gis nga àdduna kenn parfait waaye gën a la bàyyi xel ci sa liggéey rek dégg nga baax na ana yaayam nag ana mu ça va mu ngi salle de repos wasin bi moo ko xaw a sonal na. très bien très bien xam naa dafa xiif rek. waaw xam naa moo tax muy jooy. <laughs> yow nag tëddal bu baax. soppa fanaan leen jàmm. alors comme yaa ngi giseeg Moulay. mais non dañu dox daje rek. Magaar lu mënti am jàppal ni ma waaw Tuli sama jëkkër nga. da ngay fen da ngay moom ay rendez-vous ngoro. mais nga nekkaat di xalaat encore. yow bëggatuma la gisaat ngay def yi ci kanamu Moulay dégg ma bu baax. mais tais-toi. pour lan lu ma la mënti wax rek doo ko def pour lan xam nga ne bëgguma sama loxo di la laal pour lan nga may def lii. mais dalal s'il te plaît. du yaa may wax li ma war a def. génn leen fii. du dara noppi leen laa wax noppi leen. laa waxoon dootoo yuuxu si ñoom